bi ma taxawalee lii dane ma li may njëkk a def mooy pour ma solidarité génne naa sunu diggante xarit génne naa sunu diggante xarit ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma estudio bi dama koy louer pendant un mois quinze jours dama lay fay ba mu mat duma la deseel dërëm

te bi ma ko koy tegal yàlla seede na ko ay malaakaang samay kaw mbagg Boubacar nduur mi moo njëkk a apprécier Pape Diouf wallahi azim boobu xamaguñ ne ne Pape Diouf dina dem jóolool yi buuba keroog dama ko seeti comme ni ma koy wax mu ne ma di nga tax dinaa delluwaat ci musique parce que loolu dañ ko séq xam nga ne buuba ñun Sénégal fii Babacar xam na li may wax ñun dañu doon fay loo xam ne ne li ñuy fay suñu doon def Viviane daf ñuy fay lu ñuy fay nit ñi disque international pour jël temps pour bëgg a def lu baax donc kon ñun tolluwuñu fenn foo xam ne ne que dañuy wax ci nit naka su dul noonu wala wax lu ñu gëmut parce que liñ ma am tey jii maa ngi koy sante may waajur ndax lebuma banque lebuma ma sàmba lebuma ma demba kenn ku ci nekk dafa am lu ma séq ak yow ci musique may wax ku mel ni sama rak Ibou Ndour suma frère Papis Konaté su ma suma baaba am di ñi ma Buuba Nduur doon yaree li ma naan ma su may def album ku ma soxla yow koo soxla nañ leen woo ci liggéey parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak ku dee rek sa bàmmeel donc kon éducation boobu man noonu laay bëgg di doxee xaw ma lan laa xaw ma lan laa war a wax donc kër gi nag këru ñëpp la waaw sunu daara la këru ñëpp la këru taalibe la te du ñu dara buur awma lu may wax lu dul kontaan kontaan goo xam ne ne que mën naa wax sax ba wax lu ëpp mm-hmm. waaw donc maa ngi sant yàlla bu baax kontaan naa trop trop